am ndax yàlla naatal xarnu bi mboole murid yépp a ngi tuub tey réccu bàkkaar yi nu juum ba nu bay bay du nu góob bi geesul xarnu bi mbàkke dangay boroomi mbóot ca njaboot tawat gi ñu def ma ab antal pareet may làpputoo waa xarnu bi maqaamaam di la wook waaye muriid yi ñooma te bu nu woo saw lamiñi woo bi alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi din comme niñ ko waxee sànq ci lu jëm ci wàllu koor gi waxtaan yi ñu doon faral di def ci continuer di waxtaane tey ñu ñu waxoon dañuy waxtaane ci problème bi maanaam njaboot wala famille immigré yi am ci dund gi ñu dund fii ci seen wàllu diine wala ci seen wàllu culture kon jàpp naa ne loolu lu euh, lu ñëpp nemmiku la xam ne ay jafe-jafe am na ci ci li ñuy wax intégration wala ci nekk fi nekkin woo xamante bi ne maanaam la la taxoon a ñëw da ko am muy sa wàllu koom-koom loo euh, mën a sàmmee sa diine waaye tamit doo fi ñàkkee sa sa diine ak sa aada ak sa yi nga xamante bi ne mooy sa askan loolu nag bu ñuy waxtaanee lu mel ni jëm ci loolu day mel ni mën nañu xool ci alxuraan walla ci sunna wala ci demee noonu ndax danañ gis yàlla di ñu wax ci wàllu jëm ci loolu wala déet tey bu ñu xoolee am na benn boroom xam-xam boo xamante bi ne da doon wax aw way muy jàpp naa ne ku daan nekk ñaare Sénégal di diglu wal fajri daa dégg bu Maxtaar Sekk Mbooro daan di wax daanañ ko faral di dégg muy aw bayit woo xamante bi ne daanañ ko wax lu bari muy innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu muy moo ne askan yépp ñu ngi leen di xamee ci ay jikko ñu ngi leen di xamee ci ay melokaan melokaan yooyu noonu su demee ba gisatuñ ko ci ñoom mooy wanne askan woowa dem na maanaam ñun bu ñuy wax ne ay murit lañ dañoo nekk di am lu tax ñu ne ñu ay murit lañ wala buñ ne ay jullit lañu dafa am lu tax ñu ne ñu ay jullit lañu ay màndarga yu ñuy xamee ci ne diw wala mbooloom sàngamkat ay jullit lañu moo tax mu ne mbooloo mu ne ñu ngi leen xamee ci ay jikko wala ñu ngi leen xamee ci ay mandarga su fa mandarga nekkatul rek mbooloo mooma jeex na kon ñun buñ nekkee fii masalan ne ay jullit lañu wala ñu ne ay murit lañu wala ñu ne ay sénégalais lañu ci li ñuy xamee mooy suñu nekkin dëppoog murit yi àndoon walla sëñ Tuubaa ni mu gisee ab murit suñu melokaan dëppoo ak noonu bu ñu ay sénégalais lañu tamit day fekk suñu ay doxalin suñu ay doxalin dëppoog li ñu xamee ab sénégalais waaye suñu demee ba bàyyi loolu rek même bu ñuy wax ay murit lañu tamit nekkuñu ay murit wala bu ñuy wax sénégalais nekkuñu ko kon ci li ñuy xamee mooy ay jikko mooy bayit bi loolu la wax innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu kon nañu xam ne askan wu ne dafa am ay màndarga dafa am ay li ñuy wax identité am mu war ko jéem a conserver loolu tamit bu ñu xoolee ci alquranul karim mën nañu wax ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax lu mel noonu mu wax ne yaa ayuha nnaasu ina xalaqnaakum min zakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa xabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqakum mën nañu wax ne bu fekkoon ne li ñuy wax la promotion de de la diversité culturelle maanaam ci maanaam nit ñi ni ñu wutee am ay aada ak ay cosaan yu wutee loolu yàlla moo ko njëkk wax ci alxuraanul karim wax ne li ngeen nekk di ay kuréel yu wute ci aada ak ci cosaan ak ci ay giir ak ay peuple loolu man maa ko def mu nekk kenn ku ne am identité am kenn ku ne am sa identité waaye loolu bu leen ko jàppee ak gënante bu leen ko jàppee ak gënante da ngeen cee war a xoole sama kiimtaan ak sama ma sama xarañ ndax tey par exemple bu nekkee Sénégal nga gis ñaari nit ñu ñuul nuroo lool nga gis kii di ab pël kii di ab séeréel wala kii di wolof kii di séeréel ñoom ñaar ñëpp nga ne kii waxal mu wax wax olof nga ne kii waxal mu wax wax séeréer te yow mii leen xamul mënoo woon a jox benn différence ne am nañu wute kon yow mii diglu sa mbokk moo xam presque yenn a nuroo muy wax weneen làkk wudul sa làkk loolu kiimtaanu yàlla nga ci war a gis waaye waroo cee gis ne man maa ko gën ndax man maay wax olof wala moom moom ma gën mooy wax séeréer loolu da ci war a gis kiimtaanu yàlla gi nekk ci nit ñi wuute gi ñu wuute moo tax yàlla wanee ne nit ñi wuute gi ñu wuute loolu moom moo ko def te it kenn ku ne war nga sàmm sa identité sa lii la yàlla def war nga ko sàmm ba doo ko bàyyi dem di fekki keneen ci lam nekk am na ci beneen aaya boo xamante bi ne wax lu mel noonu la wax mu wax ne wa min ayatihi sama samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum am na foo xamante ne yàlla daf ne bokk na ci sama ay kiimtaan wuute gi ngeen wuute ci ay lakk di wax ay làkk yu wuute ak ci ay melokaan ci ay couleur de peau loolu tamit kiimtaanu yàlla lañ ciy gis ba tey yàlla ne loolu sama kiimtaan la man maa ko def ngeen wuute ci ay wax ñii di wax français ñii di wax anglais ñii di wax olof ñii di wax arabe ñii di wax chinois kenn ku ne nga am aw lakk waaye loolu nee na ci samay kiimtaan la bokk wa min ayaatihi ci samay kiimtaan la bokk boo xool sax dafa wax ne bind gi ma bind asamaan ak suuf nekk nañ ay kiim kiimtaan boole ci wax gi ngeen wax ay làkk yu wuute kon liñ ci mën a jàngatee ci tàmbali mooy ne kon li ñuy wax diversité culturelle loolu noonu maanaam lu sax la ci alxuraan yàlla xamal nañu ne kenn ku ne am nga ay valeur am nga ay identité am nga foo bokk war nga ko sàmm waaye sàmm gi tamit warul nekk loo xamante bii ne day wane màndargam gënante wala déet dañ cee war a gise ne kenn ku ne ci li nga doon muy olof bi war na sàmm identité olofam ba ba xam ne loolu la am ndax bu ca saxee bu yàggee mooy tax leneen lu ne mu mën ko découvrir te du génn ci lim nekk moo tax loolu noonu ba tey mën nañu gis ne bokk gi ngay bokk ci aw askan wala ci aw nit wala ci aw peuple comme ni ko alxuraan waxee danañ ko gis ci min njàngaleem sëñ bi ndax ndax bu fekkee ne sëñ bi daf ne woon man dama yeesal diine ci niñ ko waxee yeesal diine jàpp naa ne nit ki bu koy def war na ko mën a def fu ne fépp daanaka mën na ko fa def waaye sëñ bi préféré gi mu ne préféré nekk Sénégal wala dellu si waat Sénégal bi ñu ko fa génnee loolu wan na ne kon moom mi ngi wax ne maanaam ñii kat ci peuple bi wala ci askan wi laa bokk boo boo xool sax loo baat boobu la utiliser ijaal rujuan yi ilaa xaw mi moom sama nit ñi nga xamante bi ne foofu laa bokk kon sëriñ bi wane na ne foofu noonu maanaam identité sénégalaise bi mu amee maanaam moom it donte génne nañ ko réew mi tamit moom bëgg na faa delluwaat ba ca bu doon diine rek lay yeesal mën na ko yeesale Gabon kam nekkoon mën na ko yeesale Mauritanie mën na ko yeesale funeen te bu ñu xool sax ci wàllu yeesal mën nañu wax ne jamono jooju peut-être Gabon moom moo ko gënoon a yittewoo Sénégal ndax amutoon presque ay jullit te Sénégal amoon na ay jullit kon tàmm gi mu ne tàmmuwaat dina dellusiwaat Sénégal ci aw nitam loolu ba tey mën nañ cee jàngate ne moom da ci wane fi mu bokk di wane tamit ne lu fonk la donte jàppewu ko leneen loo xamante bi mën na diviser ay nit waaye comme ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante bi ne ni mu gisee diversité bokkut ak yeneen dëkk yi dafa am wuute wuute ndax tey dañuy wax ne ñaare bu ñuy comparer lu mel ni kanada ak France dañu wax ne maanaam Canada soo bëggee nekk par exemple boo bëggee nekk citoyen dañu wax ne da ngay indi da ngay indi sa dañu wax ne da ngay indi da ngay sa sa pierre ci édifice bi dañu wax ne boo bëggee boo bëggee nekk citoyen canadien da ngay da ngay ñëw ak sa culture ak sa identité indi ko li ñu am ñu taxawal li daf def li ñu wax ñoom multiculturel benn société multiculturelle loolu mooy citoyenneté boo xamante bi dañu wax ne da ngay apporter maanaam sa identité culturelle ci euh, nation bi buñ ko comparé ak France ñoom li ñu bëgg mooy nit ki day bàyyi boppam li mu doon soor a ñëw épouser maanaam li nga xamante bi ne moom mooy seen identité ñoom ñoom ñoom dëkk d'accorduñ ci France ni mu gisee loolu moom dak gisuwul gisuñu canadiens yi wala États-Unis wala yeneen dëkk yi li ñuy wax multi culturelle wala multiraciale ñoom gisuwuñ ko boo bëggee nekk citoyen daal boo xamante bii ne duñ la boole ci li ñuy wax issue de l'immigration wala euh, maanaam citoyen second degré da ngay bàyyi li nga nekk bàyyi ci bam dañ ñëw nag soo a nekk français moo tax mu gën a jafee nekk ci beneen dëkk loolu loolu jafe la boo xamante bi ne képp kuy dund fii nii gis nga ne maanaam jafe la jafe boo xamante bi ne pour nga nekk fii nekkin woo xamante bi ne du la gàllankoor ci sa lu bari faw nga bàyyi sa bopp sa identité sa diine nga sàggane ci lu bari wala sa askan wala boog lu ko moytu dana la gàllankoor ci sa wàllu liggéey waaye loolu lan moo ci rôlu waajur yi maanaam booy xool ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa wax ne waajur yi yàlla daf leen a jox ay doom yoo xamante bi ne dañoo nekk ci fitra maanaam loo xamante bi ne daal ci jullit la ñu judd ci ngëm yàlla la ñu judd waaye waajur bi wala waajur yi ñoom ñooy jël doom ji ñoo koy def nasraan wala ñoo koy def yahud wala ñoo koy def majuus wala ñoo koy def tamit confirmer ngëm gi nekkoon ci moom kon taxawaay waajur bi si doomam foofu am na ci responsabilité bu rëy ndax dañ ko jox dañu wax ne buñ koy misaal loo xamante bi dafa mel ni ban ban boo xamante bi dafa dafa tooy moom mën na ko defaree nu mu bëgg mën na ko ne nu mu bëgg mën na ci def ab kaas bu muy naane mën na ci def ndab lu muy lekkee waaye ban biñ ko jox nu mu ko neex mën na ko tabaxee moo tax yonent bi sallallahu ne kenn ku ne ci waajur yi doom jiñ la jox dañ la ko jox moom ci ak ngëm yàlla la la judduwaale walla boog ci fitra loo xamante bi ne diine la gëm la la judduwaale waaye nag loolu noonu waajur yi ñoo koy confirmer ñoo koy saxal gën koo dëgëral ci moom wala ñoo ko cee dindi def ko majuus def ko nasaraan wala def ko leneen kon ci nit ki tamit identité bi nekk ci moom pour mu gën a dëgër maanaam waajur yi am nañ ci rôle buñ ci war a mën a jouer buñ ci mën a jàpp ndax mu sax ca wala mu génn ca kon foofu tamit li ñuy gis ci sunna mooy ne yonent bi jox na maanaam ndénkaane moytulikondoo jullit yi ñu bañ ko sàggane ba seeni doom lañ juddoo woon leneen nekk ci moo tax alxuraan tamit di wax ne fa aqim wajhaka li diini xanifan fitratallahi fatara nasa jamihan fatara nasa alayha maanaam loolu limit yàlla saxal na ko ci alxuraan wax ne ci fitra laa bindee tamit doomu adama yi kon nit ki tamit bi muy judd mën nañu wax ne dafa judduwaale ak identité identité ban identité la judduwaale mooy identité ab jullit maanaam gëm yàlla ndax dañu wax ne kat yàlla bi mu waxee ne ndax duma seen borom boobu ñun ñëpp ñoo nangu woon ne bala waaye am nañu nga xamante bi ne bi ñu ñëwee ci kaw suuf loolu ñu waxoon génn nañ ca maanaam nekk ci leneen moo tax identité bi nit ki julloo bi gane àdduna moom mooy diine diine nag mooy li nga xamante bi ne waajur yi mën nañ ko ca gën a dëgëral wala ñu gën ko caa wala ñu génn ko dugal ci leneen li nga xamante bi ne nag mooy fu mel ni dëkk yi mel nii ñu nekk comme ni ma ko waxee woon sànq dëkk la boo xamante bi ne ñoom li ñuy bëgg wala li ñuy tàmm mooy nit ki bàyyi li mu doon ba soor a mën a nekk citoyen buñ nangu waaye loolu mën nañu wax ne maanaam bu ko nit ki defee day jafe ci moom lool maanaam mu nekk nit koo xamante bi dana maanaam peut-être dana réussir ci société bi ndax bu ñu xoolee li ñu wax euh, culture tey jii booy dem di jàng yi man maa ngi fàttaliku at bis bi ma njëkkee dem di def benn entretien ak benn académie ci Versailles académie maanaam inspecteur d'académie maanaam yi mu question yi mu doon laaj yëpp man xam mënuma see tontu lu bëri te pourtant ñoom dañu doon jël comme professeur français waaye li ma doon laaj ay antiquité rek lañ ma doon laaj romain yoo xamante bi ne man mujj finalement sax dana ma wax xamaan dinaa comprendre ne yow ko xam waaye loolu li ma ci bëgg a mooy ne loolu noonu tey jii loolu ay junni junni at la lu yàgg la maanaam loo xamante bi ne kenn xamu ko nga xam ne sax ñaare yenn xam-xam yi ci am sax nekkul lu wér day nekk lu nga xamante bi ne dañ koy tâtonner nga xam ne antiquité moo jur sax juddug yoon ci Yàlla sax maanaam lu yàgg la waaye ba léegi nii booy deel œuvre yi ñu bindoon ñoom dañ koy jàng ba léegi dañ koy jàng ci collège ak lycée dañ koy jàngal xale yi man li ma wax li mu ci jublu mooy ñoom mooy seen li ñu wax berceau bu ñu wax Occident parce que Europe dañ ko diviser ay pôles yu bëri boo xoolee Russie ci Europe la bokk waaye ñoom bu ñu wax Occident Russie bokk ci maanaam dafa am benn culture am identité occidentale loolu nag mooy berceau bi mooy li ñu wax maanaam antiquité rek moo tax ba léegi nii booy dem ci xale yi dañ leen koy jàngal loolu noonu nag ak tamit làkku française bi ñuy bi ñu koy jànge day nekk loo xamante bi ni mën na nekk xale bi du ci gis boppam bu fekkee ne dafa jóge ci feneen mooy lu mel ni ñun africains yi ndax yow bu ñu lay wax ay Platon ay Aristote wala ñu la wax ay Gaulois yow ta nga xoolaat sa bopp danga xam ne lii gisoo ci sa bopp kon loolu noonu ban solution lañ ci waroon a am may jàpp naa ne xale bi tey te gis naa ne sax bu ñu xoolee ci crise bi am fi mu nekk nii islamiste bi maanaam lan mooy tax ñuy recruter lu bari ci quartier yi li ñuy wax cité yi ndax xale yi fa nekk ñaare dañuy nekk ci crise d'identité la ñuy wax boo xool maanaam études yi génn wala yu bari dañuy wax ne xale yooyu noonu dañuy dem ci la ñuy wax crise d'identité la ñuy dem ndax déjà dañuy jàpp ni société bi daf leen rejeté li ñu leen di wax gis ñu seen bopp ba pare tamit li ñu nekk ñoom dëggantaan xamuñu ko par exemple bu ab sénégalais la du xam dëgg-dëgg lan mooy Sénégal li nga xamante bi ne moom mooy njëkk base bi njëkk muy làkk wi sax maanaam du ko xam te tey jii boo am na ci études yi nga xamante bi ne académie bi française génne na ko ñu wax ne xale yi ci seen niveau français dafa dafa dafa niveau bi dafa dafa dafa dafa suufe lool maanaam xale yi jógee ci immigration dafa suufe ba nga xamante bi loolu day nekk obstacle boo nga xamante bi ñu bëri dañu mujj dañuy décroché maanaam dañuy bàyyi jàng wala boog dañ leen di obligé ñu orienté leen ci ay filières yoo xam ne professionnel lay doon man loolu li ma ko jàppee mooy parce que man fi benn école privée laa nekk école catholique mais damay gis ne xale yi seen biir français la ñuy wax mais bu ñu wàccee ba seen ay waajur di leen jël si xale bu ne da ngay a e arrondissement la nekk da la ñuy wax ñi anglais lañu wax ñi libanais ay naar lañu wax ñëpp bu ñu génnee ci école bi rek lañ fa lañ fa lañ bàyyi français ñu nekkul français ñëpp fa lañ koy bàyyi nga gis ne ñoom ñëpp ak seeni waajur mais ñun africain yi wala sénégalais yi rek ñooy nekk ak suñu ay doom ñaare di leen wax français te lu ci ëpp waajur yi duñ ko dégg déggin wa ca war maanaam maîtriser wuñ ko ba man ci wax ak seen doom wax ju wér déjà loolu noonu day poser problème ndax def naa maa ngi ko doon waxtaan ak euh, sëñ sëñ Mamoun Ndiaye keroog euh, Taverny maanaam dañu wax ne autorité li ñu wax autorité autorité pour nga am ko ci ni du du du reposé wu ci li ñuy wax doole nekkul ci force maanaam autorité ci ñaari base wala lu ci ëpp ci ñaari base lay tegu maanaam li ñuy wax amour ak estime tey jii ñun bu ñu nangoo autorité Serigne Touba ba mu jaral ñu lépp du daf ñoo not ci doole wala daf ñoo not ci ay armes dañ ko estimer dañ ko bëgg moo tax ñu ne autorité ci estime lay nekk sa doom da ngay war a fexe ba mu estimer la maanaam jàpp ne yow yaa ko gën a xam yaa ko gën a xam waaye bu fekkee ne yaa ngi koy wax français français bi nga ko bëgg a moom mooy làkk li ñuy wax la langue savante mooy mooy mooy làkk bi nga xam ne ñi jàng làkk woowu la ñuy wax te di ko wax di def ay faute français day jàpp ne ah sama papa jàngul parce que mi ngi wax français di ci def ay erreur sama papa jàngul loolu lay daal di commencer analyser bu fekkee ne tamit maanaam amur bi amour bi moom peut-être ci beneen dimension lay demee ci sa comportement mooy tax mu dem ba bëgg la français bi yàq na ci lu bëri ndax bu la xasee ba classé fenn tamit pour nga waxati ko loo ko wax bu ko mënul comprendre naan lii maanaam waxi ku jàngul la moo tax li ñu njëkk war mooy def ni ñëpp ay anglais ñi ngi ci dëkk bi ay espagnol ñi ngi fi ay ñëpp ñi ngi fi tey jii bu ñu jëlee rek exemple ñi nga xamante bi ne ñoo fi nekk premier ministre France Manuel Valls maanaam espagnol la maanaam ki nekk maire Paris tey tamit moom it espagnol la ki nga xamante bi ne moo moom la fi Hollande jiitu baayam maanaam hongrois la jóge woon hongrie la jóge woon d'origine hongroise la kon te booy xool Manuel Valls fan yi bi mu demee Espagne day wax catalan waxin wu wér maîtriser ko moom dañuy wax ne sax 1982 ci la soro am nationalité française ki nekk maire maire Paris 1973 la nekk française lu luñ ci déggee mooy ne nit ki bala ngaa mën a jël leneen di ci di ko jël di ko boole ci sa bopp da ngay maîtriser sa bopp ba pare xale bi su fekkee ne ndax dañu wax ne làkk li muy jariñ aw làkk li muy jariñ mooy monde bi ñu wër monde bi ñu wër làkk bi moo koy de moo koy exprimer te ji am na baat yoo xamante bi par exemple bu ñu wax lu mel ni yàlla yàlla am na ci suñu làkk bu yàlla am na ci suñu làkk mooy bu ñu demee ci français duñ ko waxee duñ ko waxee noonu beneen baat lañ koy waxee bu ñu demee ci arab duñ ko waxee noonu loolu li muy firnde mooy avant lislaam bi ñëw Sénégal amoo amoon nañ li ñu wax notion diine amoon nañ gëm-gëmu diine donte bokkut ak diine bi ñu indil waaye amoon nañ gëm-gëmu diine ndax am baat bi am na suñu askan bu ñee kër kër ni ko ni ko ni ko tubaab di waxee ak ni ko olof di waxee bokkul maanaam maison la ñuy wax loolu li muy firnde mooy ñun avant ñu français di fa ñëw baatu kër daanañ ame ay kër moo tax yi nga xamante bi ne amu fa rek mooy lu mel ni oto oto nga xam ne amu fa woon avant ñu fi oto di ko fi indi amu mës am suñu société li ñu wax comme lu mel ay baat yu nga xam ne wala baat yoo xamante bi ne dañuy wax li ñuy wax ab notion wala idée lu mel ni démocratie wala république baat yooyu nga xamante bi ne nekkul réalité ci mondo bi waaye ay notion la kon pour nit ki mën a dem école jàngi faw mu maîtriser olof bi bokk na ci wala boog mu maîtriser français bi maîtriser bu wér ndax bu ko jàngee ndax bu ñu jëlee ci Sénégal yi nga xam dañoo juddoo Sénégal di yaru di màgg di màgg ba am juróom-ñaari at commencé wax olof nga xam ne bis bi mu duggee école ci juróom-ñaari atam wala lu ko ëpp bis boobu lay njëkk a dégg ku koy wax français la toog ci kanam ku koy wax français waaye teewul ba na muy jànge du redoubler te day am note yu baax ndax déjà am na làkk bu mu maîtriser ba man ci appuyer wu pour mën a jël leneen moo tax bu bu ko déggutoon nag dana nekk jafe ci moom te fii dañu wax ne lu mat cinquante cinquante pour cent ci ci élèves yi nga xamante bi dañu génne ci immigration bi danañ redoubler ci collège ñu si bëri bala ñoo àgg bac ñu décroché ñu bàyyi. kon li ko waral loolu bokk na ci mooy ne maanaam maîtriser wuñ benn lang du olof du pël du séeréel français waxi nopp ndax am na ci benn prof bu ma ko wax mu ne am na ci olof boo am na ci ñoo xam ne dañ seetlu boo xool seen vocabulaire yi ñu am lépp boo ko doon calculer ci ay 300 mots wala 400 mots lay am. li ñu am sax ci ci loolu la ñu turandi wax boo leen déggee ñuy wax nag dangay da ngay def ne dégg nañ français ndax ni ñu koy waxee ak ni ñu du wax wax ci sax du leer loolu moo tax man jàpp naa ne comme ni ma ko waxee sànq yàlla wax ne wa min ayatihi xalqu samawati wal ardi waxtilaafu alsinatikum wa alwaanikum loolu kiimtaanu yàlla la moo tax nit ki warul bàyyi aw làkkam bala muy jël làkku keneen di ko di ko di ko di ko di ko def moo tax bu ñu ko bàyyee rek danañ gis conséquences yi danañ danañ ko gis waajur wi jàpp naa ne loolu bokk na ci loo xamante buñ ko bu buñ ci gënoon a taxaw mën nañu dimbale ci xale yi seenum njàng mu gën a réussir nekkin wi tamit ndax comme ni ma ko waxee woon sànq buñ nee maanaam terrorisme fi ñu recruter yu bari ci cité la ndax bu fekkee ne nit ki xamul li mu doon ba pare tamit jàpp ne société bi mu nekk timit dañ ko rejeté foofu day nekk ci benn dig-digal léegi bu demee ba yàgg beneen waay ñëw rek xëy gis benn waay mu ne ko yow noo tudd mu ne ko Mamadou wala moo tudd mu ne ko xaadim mu ne ko musulman yow jullit nga kaay fii nga bokk di ko wax di ko jox ay théorie ba mu dugg ci loola nga xam ne moom day mujj dem ba day jàpp ne kat voilà fii rek moo fi des comme solution ndax day jàpp ne fii moom moom kii mi ngi koy wan lii la lii la ak tur wi lépp bu gisee xam ne fii la bokk te nag diine ak aada bokkuñu maanaam nit askan wu ne da nga am aada ndax booy xool sax bu ñuy wax li ñuy wax droit islamique dañuy wax ne droit islamique maanaam boo koy jàng am na li ñuy wax ay source source fondamentale ñaari source fondamentale yi mu am mooy alxuraan ak sunna yeneen source yi ci des yépp li ñuy wax ay source secondaire maanaam loolu lépp ci li ñuy wax xalaatu nit lay jóge li ñu wax li ñuy wax ijma daje borom xam-xam li ñu d'accord wala li ñuy wax interprétation wala li nga xamante bi ne xiyaas la yooyu yëpp ci xam-xam waaye bokk na ci li ñuy wax aada alors fu maanaam aada dafa bokk ci source yi nga xamante bi dañ ci posé wu pour taxawal droit boo demee man maa ngi fàttali ko am na benn jour ma dem Abu Dhabi benn nekkoon naa fa sax ba ma fa nekkee benn waaye di ma gis may julli si jàkka ji di ma gis may julli si jàkka ji ba benn bis mu woo ma ne ma yow dama la gis daal xame naa ne ci jàkka ji ngay julli si te xam naa ne peut-être ku bëgg diine nga waaye dama la bëggoon a labiré waaw mu ne woon booy ñëwati del del woddu del woddu ab seer <laughs> de ndax loolu mooy sunna boo booy ñëw ci jàkk ji del wodd da ngay bàyyi sa yére yi ngay sol tey wodd ndax loolu mooy sunna man na ko man fa ma dëkk jigéen ñooy wodd waaye góor ñu duñu wodd a koo xam ne ab chemise lay sol presque day yàq sa julli gi ndax ndax day bi day yaraax ba maanaam am na ñoo xam ne dinañ teg ab jàll ab jàllaa bu xaw a gudd nii waaye am ñoo xam ne bu ñu woddu ab chemise wala t rek lañ ciy teg nga xam ne yow yow mi nekk sa kanam sa julli gi mën na ko jax-jaxal te ñoom dañ jàpp ne loolu mooy li jaadu moom ñëpp moom la war a def te loolu aada la du loo xamante bi ne dëppoowut ak diine moo tax loolu dañu ci def ay jumte yu bëri maanaam di jaxase lépp ndax askan wu ne ñun avant l'islam di fa ñëw amoon nañ ay valeur amoon nañ culture amoon nañ civilisation avant tubaab bi di fi ñëw amoon nañ ko moo tax bi nga xamante bi ne tubaab bi maanaam ñëw nañ fa dañoo fexe ñoom comme ni ma ko waxoon sànq ñoom bu ñuy coloniser dañuy fexe ba yàq li fi nekkoon lépp soog faa teg leneen moo tax bokk na ci Malcolm X par exemple daana ko wax tubaab daana ko wax américain yi noir américain na leen li tax mënuñoo dem fenn mooy ne tubaab bi dañoo gëm leen ñun mus ñu am culture mus ñu am civilisation te lu feeg ñi ngi gëm loolu duñu mës a taxawal dara tubaab bi dañoo fexe ba maanaam ñëw màbb lépp wan boo liiree par exemple li am na Cheikh Anta Diop benn benn téere bu mu bind maanaam culture nègre di wan maanaam culture et civilisée ak nation nègre di wan maanaam participation bi africain yi Afrique noire nga xam ne sax première pharaon yi ay nit ñuul lañu woon di wan ne ñun comme li ko Sarkozy waxe woon bi mu demee Sénégal ne l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire yooyu noonu li muy wane mooy ni yéen mosu leen a def dara ci àdduna bi nit nag bu ñu la mu waxee loolu ba nga gëm ko day mujj dem ba da ngay bàyyeeku da ngay jàpp ne man mënumaa def dara moo tax loolu nit ki lu am solo la nit ki fexe am base bu dëgër bu mën a sukkandiku pour mën a taxawal dara kon jàpp naa ne problème yu ñu am ci suñuy famille yi nekk fii ci Europe loolu noonu jàpp naa ne buñ ci jëmoon a xaw a góorgóorlu tuuti fexe ba xale bi maanaam bi wax olof mu wax olof yu wér histoire bi mu am tamit ñu xamal ko ci lu bëri li nga xamante bi ne maanaam askan am na ci yoo xamante bi nag maanaam diine moom da koy dàq maanaam loolu fu mu ko fekk buy lu baaxul dañ koy bàyyi lu mel ni làmb ñoom fu ne dañu bëgg a gëmloon ne làmb par exemple suñu aada la te làmb fi ne boo demoon ci culture gi rek booy jàng daanañ ko fa def ñoom daanañ bëre kon loolu noonu moom diine fu mu ñëw bu gisee comportement ndax diine ci yàlla la jóge yàlla nag bu ñëwee gis sa ni ngay doxale bu ci amee lu baaxul danan la bàyyi ko la ca baax mun nga boole ko sa diine kon ñun muy tubaab yi muy naar yi muy fu mu mën di doon lépp loo xamante bi ne diine nangu na ko rek waruñu koo bàyyi di jël yëfi keneen comme ni ma ko waxee sànq ci ki ma doon wax damaa war a di wodd waaye booy xool ni ma waxee woon sànq ne dafa am loo xamante bi ne ñoom dañ ko xaw réussir boo demee ci benn livre boo nga xamante bi ne maanaam euh, wala benn discours le discours sur le colonialisme Aimé Césaire moom moo ko bindoon mu ci wax ne ñun dañoo nekk aw ay nit yoo xamante bi ne waa waa Martinique lay wax te loolu mu doon wax presque dëkk yi ñu ñëpp la doon wax mais dañoo tubaab bi dañoo fexe ba inculquer ñu ne li ñuy wax le complexe d'infériorité nga xamante bi ne dañ lay jéem a bàyyiloo sa lépp bu ñu demee ci beneen téere boo xamante bi ne maanaam Fano moom moo ko bind doon na ko wax muy wax ne maanaam guadeloupien bi wala martiniquais bi bu jógee foofu ñëw ñëw ci métro man ñëw ci ñëw Paris par exemple li muy njëkk a def mooy bàyyi créole commencé di wax français bu delloo tamit du nangoo wax di créole mu ne lool noonu ab signe la buy wanee ne moom kat léegi am na ci beneen catégorie bu mu bokk léegi feneen la bokk nekkatul fii nii yéen maa leen moo tax ne làkk woowu noonu boo xoolee am na beneen bindkat bu wax ne aw làkk sax mën na dem a dem a dem ba dox diggante nit ak moroomam ba nga xamee ne comme ni ñu ko gisee ci tubaab bi mën na nit ki xaj bi muy àndal sax moom moo koy moom lay sentir ne moom moo ko gën a jege ci moroomu nitam mi nga xamante bi rek bokkut ak moom làkk lu lu lu mën a dox diggante barrière ak ak nit ki la loolu noonu ni ko sëriñ bi waxee ci tuwaab bi bi ñu ñëwee Afrique mu wax ne wa minhum man in raa nasrani yaxsibhum min malaikati rahman mu ne nit ñi dem nañu dem ci toll foo xamante bii ne sax ci xeeb li ñu doon fonk keneen fonk par exemple ab tubaab ba bu ñu gisee ab tuwaab dañu jàpp ne malaayika lañ gis sëñ bi ne dañuy jàpp ne malaayika mu jóge ci yàlla moom lañ gis ci seen kanam moo tax loolu noonu ba léegi nii moo ñu taxa suñu dëkk yi mënul li ñuy wax développé mënu faa am développement tey booy xool li ñuy wax développement wala wala li ñuy wax colonisation ak esclavage nekkul loo xam ne Afrique rek lañ ko mas a def dëkk boo mas a jël ci àdduna bi mas nañ ko coloniser tey ji dëkk bi nekk ëpp doole ci àdduna bi Amérique la Angleterre moo colonisé woon tey booy xool Portugal moom moo colonisé woon Brésil te Brésil moo ko ëpp doole fopp fi mu nekk nii léegi nag ñooñu lan moo tax ñu mën a dem ñun mënuñu dem ndax ñoom ba ñu ña leen coloniser demee woon demee dañoo taxawalaat seen dëkk ci selon li ñu yor ci seen identité bopp soora nag économie soora mën a ñëw xam-xam soora mën a ñëw leneen soora mën a ñëw waaye su fekkee ne da nga bëgg a jàppe ne ci beneen identité laa bëgg a taxawee tabaxale la ngay taxaw la ngay ta la ngay tabax soo moytuwul du mas a dëgër loolu noonu moo ñu tee ba léegi nii li ñu wax Afrique francophone ba léegi mënul dem ci kanam ndax kenn ku ci ne li ngay bëgg a doon mooy xaritoog tubaab bi maanaam te moom tubaab bi intérêt personnel rek lay xool même bu fekkee ne ci ci li lay gaañ lay doon ndax bu ñu xoolee ñi nekkoon ay puissance coloniale tey kenn du leen tuddati bu ñuy wax ci question yi nga xamante bi ne moom mooy yi yiy traité adduna bi lu mel ni Portugal lu mel ni Espagne lu mel ni Hollande nga xam ne ñoom ay jamono ba xool Hollande yi ak portugais ñoom ñoom ñoo ñëw Sénégal ñoom moomoon Gorée mujj jaay ko tubaab bi français yi bañ fa jógee sa anglais fi ñëw anglais ñëw jógee fa français la maanaam ñi nga nekkoon ay puissance coloniale ñoom ñëpp tey ji kenn déggatu leen kenn rek nga ci dégg wala ñaar muy France ak Angleterre ca France li tax mooy moom dafa am xarañu fexe ba notaat même bu fekkee ne jox na leen na jox na leen indépendance ba léegi daf leen notaat ci xel ba léegi lépp lu fa baax maanaam tubaab yi ñoo ko yor Sénégal lépp lu fa baax tey jii lu mel ni port bi lu mel ni Sonatel nga xam ne ay milliards bénéfice def wala autoroute à bi nga xamante bi ne par exemple yow loolu noonu mooy nax yi nga xamante wala sax doo xam ay nax la doo xam ndax bu fekkee ne yow dañ da tabax autoroute à par exemple ñëw nit ki ne la mën naa la lebal bor ay milliards centaine de milliards nga tabax ko nga tabax ko ba pare ci bor bor ba des fa nga jox ko nit mu koy exploité pendant keneen beneen dëkk nga xam ne ba ci dañuy wax ne sax maanaam station service yi war a nekk ci ci ot wetu wetu autoroute bi sax du nekk Sénégal yi duñ ko moom France ñoo koy moom nga xam ne yow yaa ngi yor bor di leb mel ni yow da ngay leb après di avantage France te loolu maanaam Abdoulaye Wade commencé woon na di ci génn waaye Macky ba mu ñëwee moom lépp la leen joxaat kon li te moom dañuy wax ne sax moom day wax ne moom dafay faral di am lu muy réclame ne moom dafa juddu après indépendance kon moom moo waroon a moo waroon moo kon am liberté wala am maanaam bañ a am sentiment d'infériorité wala de complexe du complexe ci tubaab yi waaye moom day mel ni sax for baag lañ Abdoulaye Wade nangoon lépp da leen ko joxaat kon moom loolu li koy waral mooy ne ñàkk jàpp ne mënul sukkandiku ci doomi askan wi fa nekk ñi nga xam ne ay entrepreneur lañ ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañ jàppale leen ñu am ay yoo xamante bi ne dana mën a soqali koom-koomu réew ma ndax tey jii booy xool li tax ab économie di mën a dem mooy entreprise yi nekk ci ab dëkk bénéfice bi ñuy def dañ ko di investiraat ci dëkk bi waaye bu fekkee ne yow da ngay def par exemple orange di def ay centaine de milliards ci bénéfice bénéfice bi yëpp nga dongaañ ko yóbbu indiwaat France kon bu ñu tey jii dëkku africain yi te loolu dafa nekk Sénégal rek mais dëkk francophone yëpp la bu ñu jël ay gaal di dee ci di dee ci di dee ci ci ci biir ndox mi am nañ ci part de responsabilité bu rëy ndaxte la baax ku si seen i dëkk ñoom ñoo koy jël ñu ñuy jàppee nañ dañu fi ñëw di système bi ñu si bëri dañu koy faral di wax dañu fi ñëw di fi bénéficier wala di wala wu ci système français bi te ñoom suñuy dëkk la fa baax lépp ñoom ñoo ko yor te ñun fii mënuñu intégré wu ndaxte gis nañ ñoo xamante bi ne ñëw nañ ci lu yàggul juddoowuñ sax France dem ba nekk fi premier ministre dem ba nekk fi président te yow mi nga xamante bi ne mën nañu wax ay génération wala génération fii nga juddoo maanaam mënoo fee intégré wu mukk ndax dañu wax tey ji sax booy la justice dañu wax ne ni ñu koy ciblé amul benn ministre bu ñu koy ciblé ci gouvernement bi te tubaab bi ñoom ñoo ko wax ñu ne la tax rek mooy couleur de peau bi mu amee te moom français la sax ndax ñoom fi ñu nekk département yi nekk ci France la bokk. kon loolu noonu mooy wan ne ñun pour ñu accepter ñu ne maanaam dana jafe lool te alxuraan sax loolu la waxoon alxuraan daf ne maanaam du ngeen gërëm gërëmloo yahud yi ak nasaraan yi lu dul ne da ngeen a bàyyi li ngeen doon fekk leen ci lañ nekk te bu ngeen ko bàyyee tamit ay suuf rek lañ leen di jàppee ay problème la yoo xamante bi ne loolu lu mat a taxaw la ndax nit ki su fekkee ne da nga doon li nga doon ndax ñun ñi ñëpp booy xool ñi gën a réussir par exemple mooy ñi nga xam dañoo jàpp ci li ñu doon maanaam ja man olof laa ndax boo njàngaleem Serigne Touba wala njàngaleem lislaam bu fekkee ne ni ko lislaam santaane def nga ko danga nga mën a jaxasoog ñëpp ndax sëriñ bi bi muy wax nit ñi daf ne la maanaam ñetti mbokk yi am sa mbokkum deret sa mbokku diine ak jàmbur bi mbokkum deret maanaam na ngeen di bokk li ngeen am bokk pexe bokk yéene mbokkum taalibe ngeen di bëggante soppante wëlante waaye jàmbur bi mu ne la bul ko bañ bul ko xeeb bul loolu noonu kon da nga am ak jàmbur du caage ne doon sa bopp day tax nga rejeté ñeneen ñi tubaab bi booy liggéey ci entreprise bi da ngay seq ak moom jàmm salaam mu xam ne nga am moom jikko yu rafet bañ ko noonoo ni sëñ bi waxee ne bul ko bañ bul ko yàpp bul ko xeeb maanaam du caage ne dafa nekk ab yahud wala dafa nekk dafa nekk nasaraan comme ni ko ñeneen ñi waxee rek jàpp ne moom képp ku nekk ab juif rek dañ laa war a bañ wala ku nekk ab nasaraan rek dañ laa war a bañ ndax li ñu war a xam mooy ne maanaam diine yàlla def ne bu ma neexoon ñu nekk ci kaw suuf ñëpp nekk benn askan ñëpp nekk ay olof par exemple wala ñëpp ñëpp nekk ay tubaab wala ñëpp nekk ay arab waaye nee na man ma moo ma neex ma def leen ngeen wuutee ci ay làkk ci ay ay waasoo gi yëpp kon loolu noonu kiimtaanu yàlla la woo xamante war nañ ci jàngate bu ñu xoolee ci problème yi mu doon wax sànq ndax tey rek maanaam euh, euh, Manuel Valls am na benn émission bu mu doon def dafa wax ne sax euh, fi mu nekk nii li ñu nekk mooy guerru civilisation lañ nekk maanaam civilisation yi dañuy ni am na beneen américain bu ko njëkkoon bind jamono yu yàgg maanaam choc des civilisations la waxoon maanaam fi mu nekk nii maanaam diine yi ak askan yi dañuy dañuy xeex ba ku ëpp su sa moroom nag not keneen gi te nag booy xool ñun mën nañu wax ne ñun ñooy ñi ñuy wax ñoo ci gën a perdre moo tax jàpp man li ma xalaat mooy danañu dimbale lu bari bala ñuy dem di doon leneen ñu doon suñu bopp ndax sëriñ bi ci mbind yu bari mi ngi koy wax wanne ab kat nekk nit ku ñuul wala yu dem taxul la maanaam féete ginnaaw wala lenn am na ay dëkk yoo xamante bi ne ni ma koy waxee woon sànq ne tubaab yi booy jàng collège ba lycée dañu lay jàngal antiquité grecque loolu li ko waral mooy bëgg a wan ne maanaam ñoom am nañ fu ñu soqi ndax nit ki tant que gëmul ne amul fu mu soqi rek du dem fenn booy xool chinois yi li tax ñoom ñu am moteur bu leen di pousser mooy dañuy jàpp ne ñoom 16e ñoom ñoo nekkoon première puissance mondiale ñoo nekkoon peuple bi gën a civilisé bi gën a ëpp xam-xam bi ëppoon doole nga xam ne bu ñu neexoon xalaat yi tubaab bi am mën nañu booba mën nañu coloniser àdduna bi yëpp waaye ñoom amuñu woon xalaatu coloniser. doole jooju nag bi ñu demee ba Angleterre ñëw ci li ñuy wax guerre de l'opium ñëw détruire leen maanaam ci lañ daanuwaat ba dëkk yëpp raw leen. moo tax jamono ji dañ ne ñoom am nañu maanaam bu ñu nekkaatee première puissance tamit seen place bi ñu yoroon rek lañ jëlaat lu normal la ñoom loolu lañ xam gëm-gëm boobu lañu amee. boo xoolee tamit ci dëkk monde islamique dëkk bi fi gën a ci wàllu science ci wàllu xam-xam mooy Iran ñoom it xalaat yooyu la ñu amee fax Iran dafa jàpp ne ñoom comme ay njëkk bi ñu njëkk l'empire perse bi nga xamante ne moom i nekkoon na puissance mondiale moom moo tax ne ñoom ñu jàpp ne war nañu nekkaat puissance mondiale wala boog sax puissance monde islamique dominer fexe ba jël monde islamique bi yëpp teg ko seen ginnaaw soora nag dem conquérir adduna bi léegi tamit boo jëlee yeneen xeet yëpp exemple la jox leen ko waaye ñun ñi nga xamante bi ne dañu gëmloo nañu mosuleen a am civilisation ba ñu bëri gëm ko si ñun mooy tax tant que ñi ngi gëm loolu duñ mës a dem faw ñu xam ne ci suñu bopp lañuy sukkandiku tabax ca leneen lu baax ci keneen ci tubaab bi buñ gisee lu baax ci tubaab bi ndax xam-xam ñu bëri ñëw nañ fii pour ja pour di ko jàng si wala ab liggéey wala ab comportement lu baax maanaam moom jombul ab jullit loo gis ci tubaab bi bu ko maanaam euh, jomba royu ci moom waaye nag bala ngay roy day fekk am lu fa nekk ba pare bu ko moytuwul la bu deret ñëwee dana yàqu ci ay benn ay jàngat yu nga xamante bi ne wane nañu ne am na ay problème yoo xamante bi ne euh, xale yi nga xamante bi ne ci famille yi ñu doon wax ne dañoo génne ci wàllu immigration am nañ ko ñu jox ci ay par exemple ñu ne lu ëpp ci ñoom 42 pour cent ci chômage la ñu nekk maanaam 42 pour cent ci chômage la nekk ba pare bu ñu trouver liggéey dañu wax ne ay liggéey yu précaire lay doon maanaam yoo xamante bi ne ay CD CDD lay doon wala intérim lay doon moo ci ëpp 42 pour cent la ñu wax bu dee ci tubaab yi ñoom 10 wala 12 pour cent la ñoom ci lañ am chômage te loolu bu ñu xoolee nombre tubaab yi nit ñu ëppee maanaam mënuñu comparer ñaari nombre yi bu ñu jëlee tamit ci wàllu jàng ci wàllu jàng ci niveau dañu wax ne niveau yi te loolu du tubaab ñu du France ñoo ko def beneen euh, organisme international moom moo ko def mu wax ne ci bu ñu jëlee ku juddoo ci immigration jël ab tubaab tubaab bi ci niveau tubaab bi dana ko rawee lu mat ñaari at ci xam-xam maanaam dana ko rawee ci même bu ñu bokkee ñaari classe la wax bu ñu bokkee même classe boo jëlee par exemple ñaari xale yi yu def CM2 maanaam xale tubaab bi dana ko rawee ci xam-xam loolu tollook ñaari classe day mel ñoo bokk classe nii waaye bokkuñu niveau niveau bi xale bee nekk tubaab bi nekk ak niveau bi kii nekk nee na bu ñu ko xoolee bu ñu koy kii day ñaari ñaari classe lay tollool ñaari at lay tollool ci njàng pour mu dab ko bu xale bee mën na tëdd ñaari at kii di jàng ñaari at sor koo mën a dabaat te pourtant ci niveau ñoo bokk benn même classe mu ne daanaka loolu ba ba université loolu différence boobu dañ koy gis ne loolu mooy tax sax bu fekkee dafa am xale yi dañoo am ay lacune te ba pare ñoom fii dañuy faral di yóbbu xale yi niveau redoubler dañ koy dañuy wax sa dem ba mu yàgg ñu redoubler léegi day ba day ba dañ koy din ba bëgg a dindi nga xam ne xale bi day jàll mais ñoom xam nañu sax xale bi amul niveau pour jàll waaye danañ koy jàllal rek moo tax loolu di am moo tax ñu ne xale yi gis nañ différence bi am ci ñoom mooy xale tubaab bi rawee ne beneen xale yi beneen xale yi maanaam lu tolloo ñaari at ci jàng même bu fekkee ñoo ñoo bokk niveau te tamit ñu ne li ñu ëpp ci li ñu gis xale yi dugg université Afrique la ñuy jógee wala yeneen dëkk waaye du nekk xale yi nekk fii nii ñooñu ñu si bëri dañuy orienté wu ñu ne tamit am na ay discrimination am na ci ndax ñu ne 57 pour cent yi am ci orientation yi dañ leen koy obligé du ñoom ñoo koy choisir te loolu jaaduwul dañu war na bàyyi xale bi wala ay waajuram choisir ko maanaam filière bi mu bëgg mu jàng waaye ñoom ñoo leen koy poussé bañ dugg ci feneen foo xamante bi ne bëgg ñu faa jàng kon loolu ab jafe-jafe la boo xamante bi ne njàng mi xale bi du moom mooy choisir li mu bëgg a jàng waaye dañ ko koy forcer ca nit ki su fekkee day def loo xam ne bëgg ko du ca sawar kon loolu tamit état bi moo ci am responsabilité ndax danga koy ne loo bëgg a jàng mu leen telle matière laa bëgg a def nga jàppale ko ca loolu bu ko defee nit lu mu bëgg dana ca mën a daj coono waaye boo koy def loolu lu mu bëggul maanaam day mujj day bàyyi rek day xaddi day dem mais day mujj bàyyi kon foofu tamit gis nañ ci ay tolof gis nañ ne tamit ba tey ci li ñuy wax fonction publique ñoom ñoo ci gën a néew maanaam ci fonction publique yi ñoom ñoo ci gën a néew ca maanaam ay benn benn nga ciy gis ba sax li nga xamante bi ne moo ci mbax benn benn étude moo koy wax mu ne li ci gën a yéeme sax mooy ne maanaam li ñuy wax fi nga xamante ñoom ñoo fa ëpp maanaam li ñuy wax bac pro yi maanaam euh, filière yi nga xam ne professionnel la foofu ñoom ñoo fa ëpp ba pare tamit comme foofu dafa am beneen partie li ñuy wax apprentissage foofu noonu tubaab bi bu ñu demee pour tubaab bi am apprentissage parce que di def théorie ak pratique pour ñu gisaat benn entreprise wala benn kii bu leen nangoo jëlaat ñu def apprentissage foofu tamit nee na foofaat beneen problème lay doonaat ci ñoom nga xam ne kon am nañ double maanaam obstacle dañu dañ leen di orienté fu ñu bëggul ba pare comme que diplôme boobu dafa am ñaari ñaari partie da nga war di jàng di pratiquer yow nga gis entreprise bu la nangoo jël rek pour nga pratique fa loolu ba tey nee nañ ne maanaam foofu tamit gis nañ ne ñu si bëri dañ duñ duñ mën a am ku leen nangoo jël pour ñu ñu def apprentissage loolu ba tey jafe la foofu noonu. bokk na ci tamit li wax ñu ne bokk na ci euh, euh, comme waxoon naa sànq defe naa sax problème mu làkk gis nañ tamit niveau francais bi dafa néew lool. waaye man comme ni ma ko waxoon sànq jàpp naa ne làkk wi ñu waroon na njëkk a jàng dañ ko jàngul moo tax loolu nekk euh, jafe-jafe pour ñu dem jël weneen làkk. ba tax na bu ñu leen ñu ne bu ñu leen orienté woon sax ci li ñuy wax matière maanaam filière générale yi man nga xamante bi ne day aaje ay yenn niveau pour nga def ay rédaction ay dissertation wala demee noonu maanaam dañu am niveau bi pour def ab dissertation mënuñu mënuñu bind non seulement wax ji day seen vocabulaire dafa pauvre ba bëriwul ab nekk lu leen doon bindloo duñu mën a bind kon loolu tamit jafe boo xamante bi ne mën na yàq ci seenum njàng yoo xamante bi ne ñu si bëri dañuy mujj bàyyi kon jàpp naa ne ci mën nañ koo gàttal foofu kom que dafa am ñeneen ñu war a wax di wax ne daal comme ni ma ko tàmbalee woon maanaam nit ki yàlla moom moola la sàkk ba sàkk la ci ay waajur sàkk la ci aw askan comme ni mu ko waxee ne man maa leen bind ci ñaari nit ci ñaari nit ci góor ak jigéen def leen nag ngeen wuute waaye loolu sama kiimtaan la kon bu fekkee ne am nga foo bokk man jàpp naa ne yàlla moom moo la wax nga fonk foofu boo paree nag doo ci doo ci am ndax xale niñ koy waxee ñun maanaam dañu wax ne day toll niveau boo xamante bu ñu ko jàppalee mën na maîtriser sax ñetti làkk bala moo am 14 ans wala ñeenti langue mën na ko maîtriser mën nga koy wax olof ci kër gi muy dem français di fa wax am yeneen xat yu wax yeneen làkk maanaam ci diggante boobu noonu mën na fi maîtriser langue yu bari waaye bu fekkee ne yow bu ñëwee ci kër gi nga koy wax olof nga koy wax français bu demee ca fële ñu koy wax français moom day mujj dem ba day nekk ci benn niveau boo xamante bi ne day xaw a réer moo tax ñu xam ne diine sant nañu ñu li ñu yàlla sàkkee muy par exemple man dama doon juddu nekk olof dama war a sàmm loolu ba du disparaître ba li ma ndonn li ma am muy làkk wi ak aada ji nga xamante bi ne diine bañu ko waaye lépp lu ci diine bañ da nga ko war a bàyyi maanaam nga sàmm ko ba feneen foo dem maanaam man faa nekk ak ñoom jàpp naa ne buñ la yaree yarub taalibe yarub murit mën ngaa jaxasoog ay tubaab mën ngaa jaxasoog ñëpp te du la yàqal dara mën ngay liggéey ñoom de te du la du la du la du la du la du la du la du la yàqal dara firnde bi ma ci joxe mooy bañ nekkee Abu Dhabi université bi ñu nekkoon fii ay tubaab lañu mais dem nañ ba nga xamante bi ne ndax dañ fa mujj am benn daayira Dubaay ñu fay dem daayira am si koo xamante bi ne di jaxasoog murit yi di dem daayira du jullit ba mujj dema dema dem ba tuub nekk jullit te loolu ba muy tuub dafa wax ni man li ma gis ci yéen ñi maanaam moom tchadien la man duma ma mais man yéem na ma ndax Tchad mu ne Tchad ba mu fa nekkee buñ la masaana wax ab jullit maanaam diggante jullit yi ak chrétiens yi dafa dafa daf maanaam li dox seen diggante dafa rëy ba mu ñoom dañuy ragal ab jullit sax ndax jàpp nañu moom mooy kuy rey mooy ku kii waaye nee na moom bi mu jaxasoog murid yi ci la dema dema dema dem ba ne lii mooy véritable islam mu dugg ci l'islam ba tey jii ba mu tuubee ñu tudd ko Bilal mi ngi ci diina ji kon jàpp naa ne maanaam nit ci boo xamee li nga am nga fexe ba xam ko da nga mën a jaxasoo ñëpp ki nekk jullit ak ki nekkul jullit te it foo dem da fa mën a nekk lu ñuy wax ab représentant boo xamante bi ni ko sëriñ Abdul Ahad doon waxee murit moom mu nekk junni fenn ak mu nekk fa benn la war a yemale maanaam fu mu nekk rek dafa war a xam ne moom dafa nekk maanaam di wéttalikoo sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi kon jàpp naa ne am na ay jafe-jafe ci famille yi fi nekk ci immigration bi waaye jafe-jafe yi donte système bi ñoom xaw nañ leen a bloqué ndax tubaab bi noonu lañ mel ndax tey jii booy xool États-Unis man keroog bi may gis bi am na benn documentaire bu am arte ma koy seetaan ci laa yéemo ndax dinañu wax ne américains yi bi ñu dindee esclavage bi ñu amee ak ñu commencé di noir di liggéey ñu gis ne ay jàmbaar lañ ak tamit ay chinois commencé di fa immigré ñu ñu commencé di ñëw ak tamit mexicains yi ñu commencé dem ba nangu seen seen ay seen ay place ñu gis ne ñoom bu ñu ndànk danañ ñàkk dana ñàkk seen place américain dañoo tubaab yi te ñoom benn même wenn xeet wi la parce que ñoom ñoo jógee fii dem foofa dañoo xool ne ban solution lañ mën a jël pour bloquer noirs yi ak chinois yi ak maanaam mexicains yi latino yi ñu ne voilà buñ comme que dëkk droit de l'homme la mënuñu leen a jàpp parce que noir lañ wala par mexicain lañ wala yooyu ñu xalaat bañ xalaatee ñu ne gis nañ ci ca jamono yooyu noonu nekkutoon luñ tere maanaam li ñu wax euh, li ñu tox li ñu li ñu tox mooy ñax mi lañ koy wax defe naa maanaam chanvre chanvre indien ñu ne mexicain yi dañ koy tox dañ koy faral tox ñu daal di génne benn loi daal di koy tere ñu ne noirs yi américain ñu ne ñoom cocaïne lañu la ñuy utiliser ñu jindi benn loi ñu ne chinois yi ñu ne l'opium la ñuy tox ñoomit ñu ñu génne ko ay loi commencé di leen jàpp di leen dugal ci kaso yi ba tey fi mu nekk nii quatre-vingt maanaam ay pour centage sax dafa yéeme li nekk ci prison yi ci ñoom te dañ ko def rek pour bloquer leen kon li am solo mooy dama jàpp ne boo nekkee nit koo xamante bi ne peut-être moom day fexe tout le temps di la galgalal yow bul ko may loolu bul ko ko yombalal xale yu juddoo fii wala ñun ñi fi nekk dañu war a fexe ba diplôme bu kawee bu nit ñi am rek ñu am ko comportement bu ñu am tamit ñu gën a exemplaire ñëpp bu ko defee ñoom duñu amati wenn lay ndax bu ñuy wax par exemple ne Afrique mënul mënul dem mukk loolu luñ ci jublu rek mooy ne pour légitimer colonisation ak esclavage yëpp ñun bu ñu xamoon ndax booy xool am na benn livre boo xamante bi ne euh, euh, Roland Dumont def naa moom moo ko bind l'Afrique noire est mal partie lu jamono yi année 60 yi la ko bindoon waaye la mu waxoon ci colonisation ne ne yoon wi ñu jël baaxul gis nañ ne ba léegi ñi mënuñu ñu am euh, économie bu baax kon am na dëgg ci ñoon te boo dem ci livre boobu noonu ku ko bind du du musulman du sénégalais te pourtant dane woon njàngale mi may gis Sénégal ci murid yi bu ñu ko jëloon Afrique yépp mën na développer ci dëgg bu gaaw kon jàpp naa ne bu ñu xamee suñu bopp man mën nañoo ubbeeku lépp lu nit baaxal ñu jël ko boole ko ci lu ñu am ba pare tamit nekk ñun ñu ñu doon di taalibe Serigne tubaa wasalaamullahi aleykum